mbokk yi ñu ñuy teewlu ci seen site numéro un de l' actualité sur mobile Sénégo ñu ngi leen di jaajëfal war a dikkaat ak yéen ci beneen cas goo xamante ni am na lan moo xew li boole woon Lamine Samba ak benn policier mujj nañ ko atte ca baaru tribunalu Pikine Géejawaay policier bi nga xamante ni dañuy lepturam te sant ñang da doon laaj xaalisam animateur de lutte boobu noonu di lamin Samba waaye moom mujj na am gain de cause am ndam ci maanaam laaj gi mu doon laaj xaalisam lamin Samba ndax Lamine Samba mujj nañ ko daan euh, mu war a fay juróom-ñaari millions en guise de xamante ni sunu mbokk taskatu xibaar yi nekk Le Soleil daa indi ci loolee doxoon ci diggante Lamine Samba ak policier bi li xew nag buñ dikkaatee ci eh, xew-xew bi mooy que ni moom policier bi dafa joxoon Lamine Samba ay xar yoo xamante ne Lamine Samba daf ka ko waroon jaayal benn weer laataa ñu dugg ci eh, tabaski mu mel ni animateur bi bi mu demee ca policier ba la mu fa jël ci limu xar muy euh, toll ci euh, juróom-ñett fukk muy quatre-vingt bélier lépp war a toll ci dix-sept million muy fukk ak juróom-ñaari million waaye mu mel ni Lamine Samba nee nañ dafa versé policier bi fukki million ak benn muy onze million mu waroon ko desel maanaam six million yu mu ci waroon tegaan ngir mu mat waaye nag mu def ay weeri weer maanaam policier bi jotul reliquat am looloo mujj indi plainte pour escroquerie policier bi daal koon woon yóbbu ci yoon ba démb nag yoon atte Pikine et Guédiawaye Lamine Samba finalement kon dina obligé à titre de dommage et intérêt fay juróom-ñaari million muy xibaar goo xamante ni moom la ñu xëyee mu mel ni mbur mi tey xayom xayomi gi euh, ci wàll millions yi la war a dem ci loolee nga xam te war na ko fay euh, policier